Sadio Mané mu nekk ci forme boo xam ni yéeme na bokk na ci xibaar yi daanaka juróomi ponk la ponk bi ci juutu nag mooy gonek sénégalais gi la ñu koy doore ngeen gis ko entraînement bi nga xam ni def na ko di tàggatu goo xam ni gu mucc ay wila tàggatu goo xam ni gu cuqur mbuuc moo kii gaayam daanaka moom rek laa ci coppati wan leen li nga xam ni moom lay liggéey ci njeextalu saison bi nga xam ni bu footballee baax na bu footballul a def lépp daanaka ma ngi ko sabablu bu mu mën di doon moo xam Bayern la moo li leer ba leer mooy gone gi mi ngi def ay tàggatoom def li nga xam ni uh, moo ko war ca équipe boobee nga xam ni moo nekk équipe bu Bayern uh, di tàggatu uh, di baraj baraj ji nga xam ne daanaka fi mu toll nii tu gii mu def ngeen gis kooku défenseur défenseur boobee nag bu ngeen ko gisee daanaka attaquant la boo xam ne moom Sadio Mané bëgg na di liggéey ak défenseurs yi mën a xam seen i secret xam fu mu leen di jaar ba mën a tulli leen dem jóge foofu nekk ci leneen Vinicius Junior wax wi doon miti tey jii médecin bi na ko na ko sa ginnaaw bandang da nga mën a football ci match bi nga xam ni moom football moom la Real Madrid di football ci ngoon gi kon match boobee bu ko Carlo Ancelotti soxlaa moog doomam ah, danañ ci mën a jot fekk ko mu ànd xam ne ah, gars yi nanu ko ñaanal loolee ah, jëm kanam bu baax a baax mooy Vinicius Vini eh, Senior mi nga xam ne fi mu toll nii injustice bari na ca moom fële ca Espagne ca Espagne googu ak Angleterre jëm France ñetti dëkk yooyee la ne ngane la bu ngeen ko déggee mooy kii di Kylian Mbappé ngeen xool ko bu baax a baax City mi nga xam ni neexul deret ndax bëgg naa jël Ligue des bu ko coppatee nag daanaka gone gu mu bëggate dana ca méngoog Real Madrid ndax City dana mën a coppati ki nga xam ni moo nekk kii di Kylian Mbappé fekk boobee Real Madrid tamit bu Vinicius demee dana ko bëgg kon laaj boobu mën nañ ko faa samp bu ngeen doon jox kii di Kylian Mbappé ban équipe ngeen ko yóbbu foofee Real Madrid maanaam daanaka taxaw na City taxaw kon ci commentaire yi man ngeen a taxaw temm a seen xalaat ci boobee commentaire na gàtt nag tey aju ci teggin ci commentaire yoo xam ni mën naa mucc ayib ndax réew mi ñu ne réew mu mucc ayib la te lépp daanaka ma ngay ci yoon ci tolloo lépp di jaar yoon jërë ngeen def ci côté boobee beneen information xam ne ci dana war a dajeeg équipe bi la di équipe bu Israël bi nga xam ni match boobee ci ngoon gi lay commencé tey ci ngoon gi lay am gars yi nanu bàyyi xel équipe bi nga xam ne moo équipe bu Sénégal bi ah, ba Diallo ak ñi ma àndal moom mii di capitaine bi excentré droite lu du taas mi ngi koy xaar maanaam liggéey bu am solo ah, mi ngi koy xaar ci ñi nga xam ne ñoom la jiite ndax gone yëpp danu defum ndiraan ànd topp ci ginnaawam ànd di ko footballal ah, digg militaire ba tamit gone yi war koo jaxase Mamadou Lamine Camara mi nga xam ni boo amul chance match boobee ndax dana ca bokk ca bokk ndax moom moomee ah, daanaka xaw a nege-nege gi muy def ci digg terrain bi loolee war na a jóg bu baax a baax fekk na booba ah, Jordi Alba tàggatoo fajili ca équipe bii di Barcelone catalan yi daanaka ñàkk nan ab latéral gauche boo xam ne bu amoon solo la ci équipe bii di catalan yi ah, fële ca Barcelone ndax moom a bëgg gu mu bëgg Barcelone ak Espagne loolee méngoo nga xam ne moom def waaye dem nga bett nañu bari ci li nga xam ne mooy latéral defee carte gi leer coow du jub bal du takk jërë ngeen jëf ànd bi am na solo